auditeurs yi internautes yi ak téléspectateurs seen émission les grandes gueules ci seen TV ak Zik FM euh, leneen li ñuy waxtaanee nag mooy l'une des grandes actualités de ce mardi 6 décembre 2022 muy confrontation Ousmane Sonko Adji Sarr Ousmane Sonko président bu PASTEF et maire de Ziguinchor ak Adji Sarr mi nga xam ne mi ngi doon liggéey ci salon de beauté bi ñu naan euh, salon bi salon de massage autant pour moi suite beauté euh, tout mal Ousmane Sonko viol ak menace. Euh, déglu nañ ko déglu Ousmane Sonko le doyen des juges d'instruction jàpp ne ñoom ñaar war nañoo mën a toog ñu laaj leen xaw ma nag fan la mujjee peut-être ñi ci biti mën nañoo informé ndax yëf yi jeex naam jeexul mais ce qui est sûr c'est que ça tire encore en longueur ba sànq bi ñuy dugg émission bi yëf yi jeexugul et je pense que c'est une étape décisive ci dossier bi nga xam ne mu ngi téye en na leen le Sénégal depuis un an et demi sinon même un peu beneen étape boo xam ne amaana mu gën a sore amaana fii la yem loolu mi ngi dépendre ci juge d'instruction bi ak la mu cay décider mais je pense Cheikh Oumar Talla euh, il fallait quand même peut-être ñu yegg fii wala boog ñu séentu ne lii waroon na mën a am. waaw euh, c'est un dossier qui a tenu en haleine euh, le pays. tout le pays pendant deux ans. Mm -hmm. avec solo finesse et macabre donc je crois que comme li may faral di wax rek. Ousmane Sonko moo il a tout intérêt pour que euh, seetal deram parce que euh, weddi du du du du ragal mais seetal sa der la et ensuite yaa ngi koy wax euh, bi nga xëyee ba tey c'est une bataille d'opinion sur les réseaux sociaux sur la presse partout. depuis bi ñu annoncé confrontation bi d'ailleurs donc ça veut dire que nekkatul dossier Ousmane Sonko Adji Sarr c'était devenu un dossier boo xam ne am na beneen envergure politique. où chacun essaie de. politique bi mos na cee génn sax. oui mais mooy mooy moo tax ma ne la. daf ko gën a firnde. Mhm. parce que tey boo xëyee ku si nekk yaa ngi def une bataille d'opinion. tu reçois des informations d'ici et d'ailleurs alors que tey euh, man nekkuma foofu si biir. kan moo nekk si biir et ensuite dans le cadre de la procédure confrontation euh, lu lu ñu séentu la. Euh, c'est une procédure normale. donc bu fekkee ni am na koo xam ne moom mooy jiin ka muy jiin juge bi woo leen pour ñu daje. moom mu mun a si tirer li nga xam ne moom la ci tirer maintenant man euh, du ma bëgg varier ci sumay posture man de le début euh, li ma gis pour man seen seen machination une orchestration pour salir un adversaire parce que ba ca politique raxee rek man laa ci am euh, xel ñaar boobu parce que tey Simon il faut tamit ñu ñeme waxante dëgg xool que ce qui s'est passé lan moo indi ba affaire bi egg fii ca tàmbale bi bi yëf yi amee mënoon nañ ne c'est entre de personnes privées deux citoyens normal man maa ngi nii damay am procès soo jibul keneen day am procès chaque jour nga dem ci tribunal gis ñu àtte mais fii nekkatul loo xamante ni euh, lu lu ñu mën a néewal la loo xamante ni mën nañ ko minimiser ne affaire de comment la la raison est très simple ñi nga xam ne ñoom ñoo féete ci nguur ñoom dañuy toog di ci wax ndaw si am ñu ko ngembaam ñu ko jàppale ñi farak Ousmane Sonko ñoom it dañuy toog di ko defam donc jël na beneen dimension malheureusement euh, ñi nga xamante ni ci manifestation yi si amoon coow li si amoon seen i bakkan rot na ba tey réglé gu ñu question boobu tey tey man li ma mës a jàpp rek mooy on va aller vers un procès moral parce que la fois passée liñ fi wax ay waxu test ADN parce que pour man ci fekkee ni liñ jàng ci droit fàttewuñu ko la charge de la preuve incombe au demander c'est-à-dire tey su dee man maa la jiin man maa war a produire li nga xam ne mooy suma ay preuve ma teg ko ci taabal ji ne lii la mais tey bu fekkee ni certificat médical bi nga xamante ni moom moo waroon a firnde loolu am na certificat médical bi firndewul loolu juge bi balee passé mu laaj ki nga xam ne mooy Ousmane ko euh, pour ñu am ci moom ADN yoon may na ko mu ko juge bi nag fii mu toll nii comme confrontation am na ça veut dire euh, le reste de la procédure confrontation fu mu am procès na am maintenant nag ci yan condition la ñuy demee ci procès et que bu ñu demee ci procès bi lan la ñuy wan sénégalais parce que pour man euh, il est important que justice def liggéeyam bu fekkee Ousmane Sonko moom moo tooñ ñu daan ko bu dee tooñul tamit ki nga xamante ni moom moo ko jiin yoon daan ko mais jusque là moi je trouve que dimension politique bee ci ëpp boo gisee may wax ni euh, opération euh, de liquidation d'adversaire parce que Sénégal loolu la ñu tàmmal Sénégal li ñu tàmmal mooy mën nañ jël koo xamante ni Macky Sall bi mu ñëwee ba tey képp koo xamante ni gis na ni tu as un adversaire capable de lui faire face dañuy instrumentaliser la justice et c'est ce qui est arrivé à Karim Wade à Khalifa Sall et voilà Ousmane Sonko bu fekkoon ni euh, résister wul woon heure bi kenn waxul ay procès ñu ngi ko téye ba tey ci kaso d'accord euh, Serigne peut-être euh, yegg guñu ci procès dina am wala du am mhm. on peut l'envisager mais toujours est-il que il a encore la présomption d'innocence mm -hmm. en tout cas pour le cas de Ousmane Sonko parce que tuuma la mhm. tuuma la ba léegi àtte jibagul sentence jibagul mhm. donc il faut également que peut-être nit ñi mën a bàyyi loolu xel surtout que confrontation la kii moo tuumaal kii ñu tuumaal moom ak ki ko tuumaal toog nañu peut-être après le reste euh, ñu am quand peut-être euh, je ne sais pas benn euh, rafet njort ci juge d'instruction bi ak ni mu téyegum dossier bi waaw man je pense que ça s'inscrit dans l'ordre normal des sos donc ñu leen parce que euh, ñi ñu woolu ñëpp aussi mooy ñaari citoyens yoo xamante ni dañu jote donc Adji Sarr xëy na ni Ousmane Sonko def ko violé loolu on n'en disconvient pas mu wax loolu ñëpp dégg ko Sénégalais yëpp dégg ko donc bi ñu paree Ousmane Sonko tamit am na ay kàddu yu si tegoon mooy que ni man li mu jàpp mooy complot d'état la dañ ko complot ba cité si le nom du président Macky Sall. depuis boobu ba léegi nag si foofu la taxaw génnul cadre boobu. looloo yóbbu dossier peut-être ci dimension politique bi mu. dimension politique bi parce parce que man li ma ciy wax rek euh, si moom mooy comme c'est un dossier dossier foncièrement technique aussi complexe tam doo si mën a dem très complexe doo si mën a dem au fond li li li leeral mbir mi rek mooy ñoom ñaan ñu ñu àtte leen parce que àtte bi aussi dafay jublu ci intérêt ñett ñi muy d'abord intérêt Ousmane Sonko bi nga xam ne dafay aspiré wu pour nekk président donc moom jot na aussi comme Cheikh Omar wax na ko léegi bu fekkee ni ki ki ki nga xam moo tuumaal naam war na indi ay preuve yu wane mais ki ñu tuumaal aussi. bu amee lu ko mun a seetal itam da ko war a indi te ko si table bi. donc nag moo tax ma ni affaire bi dafay jëm si intérêt ñett ñi d' abord intérêt Ousmane Sonko war na lu mu mën tamit aussi yombalal mbir mi mbir mi gën a gaaw itam si côté pour ñu laver honneur am balaa ñuy dem ci ay élections donc si côté Adji Sarr aussi pour l'intérêt de Adji aussi pour mu mën a vaquer normalement également elle a des droits. normalement à ses occupations parce que gis nañ depuis lors mu ngi nekk si benn endroit boo ko xamante ni kenn xamul xëy na peut-être loolu gënalu ko donc beneen bi tam mooy le peuple sénégalais dans tout ça li nga xamante ni ñàkk nañ si ñaata baggan le dossier bii. fukk ak ñett donc loru nañ ci mbir mii depuis ba boobu ba léegi dossier bi mi ngi gën a jël ampleur mi ngi gën di dem. donc nag au nom de ce peuple là ak victime yi nga xamante ni ba tey ñu ngi jooy seen seen ay doom ñooñu war nañu mën a tax aussi tamit ñu ngi leeral li nga xamante ni mooy dossier bi dossier bi. peut-être peut-être euh, les gens s'appesantissent sur le plan euh, bilan humain. bilan humain mais euh, côté économie on a également perdu beaucoup de choses. beaucoup de choses bëri toog nañu ñàkk seen liggéey bala ñu koy jotaat xëy na yàgg na. Euh, ak oto yu ñu lakk ak yeneen ak yeneen. ci crise crise technique tous les dégâts crise technique euh, mi dossier la boo xamante ne looloo tax li nga souligner ci peuple bi tam am solo. voilà mhm. mooy le peuple sénégalais dans tout ça. Mhm. ñàkk nañ si ay doomu aadama. ñoo xamante ni ñu ngi doon liggéey ay xale yu ndaw. yóbbu leen centre de formation ñuy liggéey seen waajur yi am si ñoom yaakaar ñu xëy xëy ñu dóor nañ leen bal ñu dee. donc nag au nom de ce peuple là. Mhm. rek war na mun a tax dossier bi leer. donc am finalité. ñu xam kan la ak kanul ak ak kan donc nag politique mënu si génn. parce que ba mbir mi ne këtt ni jon Ousmane Sonko jël na dossier bi génne ko ci salle salle Sweet Beauté yóbbu ko ci milieu politique bi automatiquement il a accusé l'état du Sénégal donc nag état accusation boobu mu def nag lenn moo tax mu gën a susciter ay doute ak ay firnde ak ay dëgg mooy l'implication de certains ministres ci biir dossier bi yu ci génn di ci wax